la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu limamullah ah mbégte ndax euh, bàyyi bu ne aajiboo daay yaa masar insi wal inni rasulullah ilaykum woote bi doore woon ca Seydina Limaamu ba agsi fi tey ànd bi yëpp gis ko gën a yokk ñuy xëy def naa mbë mbégte gënu rëy rëy lañ ci am si woote bi waaw daal kii loo xam ni daay la boo xam te ni islam moo ko tax a jug ndax boo ne doole islam tënk na lépp daayira bi defe naa ne ki nga ci ci wàllu secteur u déen tijaan la boo ñëwee ci Pikine ki fa la ak ñun ñuy laayeen lépp la ëmb daayira bi ndax euh, sëñ noonu lay dundee sëñ Ablaay moo daan doxee noonu moo daan boole tarixa di yëpp diine jëpp la daan boole kon nag loolu lañuy dundal ñun fexee doole booleel islam bi du doon benn ndax bi bi yàlla ne waxtaan si moom bi xam dinaa jëmeen wala dafa rafetlu dañ ko bëgg dundee bëggul bëggul yem si wax rek sëñ boo xoolee jël na ay doomam tuddee ko kon nag dañuy dundee waxtaan si moom bi xam dinaa ndax loolay doo islam. waaw. appel mbégte rek di ñaan yàlla mu gën a ñëpp di ko fekke appel bi di gën a yokk rek barke sëñ Ablaye. ñu ngi fii ci kër Ibou mu baax mi. def naa fi dal fii yëpp moo koy occupé si appel waaw xanaa di wax ne bisub yàlla la rek du bisu fo du bisu fu ñuy joxe rendez-vous man gën a yokk surtout taxawaay bi te ni xam ni euh, ku fa rek yàlla dina la fay ñu gën yokk di yar geeg yokku diine diine ji ndax fii boo fi ñëwee nag fi jàng yàlla nag fi xam-xamee yàlla du du fu ñu pour ay caaxaan ndax bàyyi laay bi mu wootee ñëpp da nga ko fekke si kon nag taalibe yi war nañ gën a mën a taxaw woote bi da sellal bu baax woote bi maa ngi loo ci capté. waaw ah, xanaa di ñaan mu yokk rek yàlla gën a yokk incha allah.